monsieur le ministre je sais que vous xam nga doléance parce que depuis 2017 je suis porté à l'Assemblée nationale sur ce perchoir et nous espérons fortement que cette année notre appel sera entendu monsieur le ministre l'hôpital Mam Abdul Azizi Sy Dabakh nous relevait relever son plateau médical aujourd'hui y a un problème crucial dans le département de Tuawan en général et dans la commune de Tuawan en particulier nous ñu un hôpital Mam Abdou niveau 1 et niveau 2 Francis, nous avons état du Sénégal nous avons un engagement Nous avons un ah ñuy rek engagement monsieur le maire Diane Simbeng Mbengue proposé woon nous sax pour octroyer parcelle pour nous nous ñu un hôpital mais au-delà de bëgg-bëgg boobu nga xam ne Tivaouane am na ko ñu ngi ñaan hôpital Maam Abdoul Aziz Sy baax ah vraiment mu nekk hôpital boo xam ni ku ñëw kat di nga nekk ci condition yu baax pour faju ndax nag Tivaouane monsieur le ministre dafa nekk une ville religieuse polarisée ay dëkk yu bëri ces dernières années nous avons 33 communes yoo xam ne dañ ko rattaché à la commune kon jàpp nañ ni les besoins les plus primaires une ville religieuse war na am te buñuy wax besoin plus primaire ci askan une bonne santé daf ci bok une bonne éducation des infrastructures mais aussi eau ak assainissement daf ci bok comme tu ya en tant que ministre de la santé ça m'appelle 2017 ça m'appelle sama appel 2018 ça m'appelle bu 2019 ça m'appelle bu 2020 monsieur le ministre vous êtes quelqu'un bo xamné xam nañ ni jambar nga yaa ngi liggéey mais bayil xel la commune de Tiawan ndax une ville religieuse la soxla nañ ay infrastructure rawatina nak li nga domaine de la santé ñaari doléance yi apporté wat nalako moy relever le plateau médical de l'hôpital Mam Abdul Aziz Dabar Dabakh mais aussi am nañ site pour vraiment ñu amaat hôpital pour la commune de Tivaouane duma ni sax la commune de Tivaouane ndax ñepp xam ni regorger des milliers et des milliers de Sénégalais kon nous sommes rek war nga mëna dans de bonnes conditions pour faju encore une fois